alhamdulillahi alkarimi fi lminan ala digali bi forojin wa sunan alhamdulillahi alkarimi fi lminan ala digali bi forojin wa sunan شكرتها لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني وقادني إليه بالتحلي min baadi ma hadaba bi daxali wajarani fi. li ñu ci gën a yitteel. waaye nee na siyaare bi nag li ñu ci gën a yitteel. mooy seenu ñaan. xam nañ seen maam lim jëlee woon ci Serigne Touba. xam nañ seen maam lim jëlee woon ci Serigne Touba. kon nag bu taxawalee bis bu mel nii. yéen ngeen yor ko ne ci ginnaawam te mel ni ngeen mel te mel ni ngeen mel yéen lu ngeen ñaan ci bis bi rek yàlla dana ci ànd ak yéen moo tax na ngeen ñu ñaanal te ñaanal réew mépp lu ngeen ñaan tey rek yàlla dana leen ko defal bis bi toll na ni yen ñi yor bis bi tol tol ngeen ni jërë ngeen jëf sëriñ bi ne nee na mi ngi siyaare tey ñaan ngeen yàgg ko taxaw jërëjëf sëriñ Basiiru nee na mu ngi nuyu sëriñ bi nee di nuyu sëriñ Cheikh Abdou xanaa day mel ne rek xeetu day mel ni publicité lay doon sëriñ bi nee na day mel ni publicité rek lay doon damaa juboo ak Serigne Bassirou Antañang mi xalifa borom daaru. ne ndax dafa juboo ak Serigne Bassirou Antañang mi xalifa borom daaru. ma ñëw siyaare ci suba gi. ne ma ñëw siyaare ci suba gi. Serigne Mahfous. Daaru Karim waa kër Serigne Modou Fati Xari. Daaru Karim waa kër Serigne Modou Xari ak waa kër Serigne Massamba. ñëw fii ci Serigne Cheikh Abdou nag. su su ngoonee. ne ñu tànnaat ci njaboot gi. ñoo xam ne. ñoo xam ni. Mahmadan moom Serigne Bassirou Anta Niang moo koy jiite. Mahmadan moom Serigne Bassirou Anta Niang moo koy jiite. gisoon ci appel bi. nee gisoon nañ ko ci appel bi. nee bu dikkee mu dikk teewaat fi ci li des ci ngoon gi. waaye nag. waaye nag. Euh, tombe day waral ay gaaf. nee tombe day waral ay gaaf. waaye day waral it rafet gaaf. waaye day waral rafet gaaf. nee gii gaaf nag dafa rafet. ñaari leeri Serigne Fallou seetlu naa ko ci jataay bi. nee ñaari leeri Serigne Fallou seet na ko ci jataay bi. ca guddi gi ca guddi gi. Eh, ak Cheikh Modou Fadal. ak Cheikh Modou Fadal. dañoo jaxasoo bay benn. danoo jaxasoo bay benn. dafa am benn mbokk mu baax. nee dafa am benn mbokk mu baax. day wax ni day wax ni. Eh, suñ ko mënoon a wax. nee suñ ko mënoon a wax. dañuy wax ni virus bi ci Serigne Touba. nee virus bi ci Serigne Touba. ku ko xeeb dalaa laalut fenn. ku ko xeeb dalaa laalut fenn. su fekkee mënees na ko waxee noonu. su fekkee mënees na ko waxee noonu. ma ne ko ma ciy jox misaal. sëriñ bi ne ko danga ma ciy jox misaal. mu ne dangay seet Amadou Mokhtar Mbow. ne ko dangay xool Amadou Mokhtar Mbow. ba muy eh, ànd ak soxna May. ba muy ànd ak soxna May. di ko yóbbu ci otoom. di ko yóbbu ci otoom. ci Cheikh Mamadou Fadal. ci Cheikh Mamadou Fadal. Eh, ngir ngir ngir eh, laylatul xadar gi. ngir laylatul xadar gi. lañ doon yóbbu. ne lan doon yóbbu. muy lu yem a yem. muy lu yem a yem. moom moomee ko doon yóbbu. boo xoolee fi mu jaar. soo xoolee fi mu jaar. ci gouvernement Sénégal. ci gouvernement Sénégal. ni mu demee bitim réew. ba ni mu demee bitim réew. ba tey jii. yàlla di ko defal teraanga. yàlla di ko defal teraanga. ku xeeb ku xeeb. Eh, li bàyyi ci sëriñ bi bàyyi ko ci sëriñ bi. da koo mosul rek. nee da koo mosul rek. waaye ku ko mos. waaye ku ko mos. wala nga gis ku ko mos wala nga gis ku ko mos. doo ko werante. kon nag. kon nag. dañuy ñaan yàlla ñaan yàlla sunu borom. noonu ñu ko tàmbalee woon ci Cheikh Mamadou Fadal sëriñ bii moom doon suñu lépp loo xam ne doon suñu lépp loo xam ne yàgg na lool ci fii ñu toog te lépp di rafet am na ci loo xam ne duñ ko wax waaye dañ koo dund lee ñu gën cee yokk mbégte ci loolu. wane ne kon Cheikh Mamadou Fadal. wane ne ni Cheikh Mamadou Fadal. ak soxna Maymuna. ak soxna Maymuna. teewaat nan ci jataay bi nag. kon mën nanoo am yaakaar bu baax a baax. li sëriñ bi wax. moom sëriñ Abdul Karim. ni nanu ñaan bu baax te ñaanal réew mi. ni nanu ñaan bu baax te ñaanal réew mi. loolu mooy waxi borom xam-xam. nee loolu mooy waxi borom xam-xam nag. mooy waxi nitu yàlla. mooy waxi nitu yàlla. sa bopp dafa yomb. nee sa bopp moom dafa yomb. waaye li ñëpp bokk. def ci wax ci def ci wax ci. nee looloo jafe. ka topp ay nagam ca àll ba. ay nagam ca àll ba. boppam da ko ca bàyyi. kon sëriñ bi ñaan gi. kon sëriñ bi ko yàlla nangul. ci darajay Cheikh Mouhamadoul Fadal. ak soxna May Muna. ñi nga xam ne ñoo ko seqoon. yàlla may ñu ñu fekk ko at yu bari. ca yàlla. yàlla wéral cër yi sàmm ñëpp nee ku fi indi jàngoro sunu borom faj ko ku fi indi aajo yàlla ko sunu borom faj nee sunu borom nag day koo xam ne loo ko yen attan na ko loo ko yen attan na ko kon nan ko yen li ñu bëgg lépp jox ko lim moom lépp laaj ko li ñu bëgg lépp jërëjëf sëriñ Cheikh Abdou. sama rak di sama jaam di sama xarit. Cheikh Abdoul Ahad nee di siyaar sunu waajur baay Abdou Karim nee di ko nuyu bu baax itam di nuyu Serigne Bassirou Mbackeem Cheikh Abdoul Khoudous moo mi nga xam ni moo yore kaddu Daarul Khoudous Daarul Muxti di nuyu Baye Serigne moom Cheikh Mamadou Fadal ak sëriñ Ax moom sëñ Modou Moussa Diang ak sëriñ Abdou Aziz mii nga xam ne doomam la ak ñun fi fekk ñëpp ne kaddu yi di kaddu yi cant ak ngërëm yu jóge ci sëriñ Cheikh Abdoul Ahad jëm ci mbokk yi ñii di ay ndijaayam ñii di waajur ci moom tàmbalee ci alaaji maam Cerno mi fi bàyyi ko léegi ndax bis bi dafa lool ndax soxna may muna moom moo ko sosoon de ci ndigalul Cheikh Mouhamadoul Fadal ibnu Xaadim Rasul nee doon ko taxaw taxaw bu rafet ba bàyyi ko fi soxna Baali doon ko taxaw nee moom it loolu lépp yokku ci ak nekkam ba yàlla dogal mu bàyyi ko fi bàyyi fi sëñ Abdou ak soxna Assu nee lépp luñ fi bàyyi woon ñu téye ko. sàmm ko ba bis bii ku fi ñëw di nga xam ne yokku na kon nag loolu su amee Cheikh Abdoul Karim moom Cheikh Modou Fadal fekke ko Cheikh Modou Fadal moo def loolu lépp ndax moo ci ñaanoon ca ginnaaw ya kon jataay bi su amee ngeen ñëw fi ànd koog moom ñu ngi sant yàlla di dalal xel di xam ne moom wéetul wettali ngeen ko téye ngeen ko sagal ngeen ko ndax moom wax na ma léegi ni baa yi fi am lépp nee sëñ Abdou Karim ko fi def ak yeneen yoo xam ne sab taxawaay la nee noonu la bokk yu bari taxawe ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yónnee na fi teraanga yu bari ñooñu ñëpp nag noonu lan def nee ak sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad ak ndijaayam yëpp. ak waajuram yëpp nee loolu nag day wane ne xelam dal na ndax ndax moom yomb na jomb na jomb na ko ngeen di ko jëfal wala ngeen yónnee ci moom kon loolu dafa dalal xelam bu baax waaye li lay wax rek sëriñ Abdou bokk yëpp am ci yow mbégte ñëpp la sant ñëpp la gërëm li sëriñ Abdou Karim wax léegi fi nga war a nekk yaa ngi fi. yoon wi nga war a nekk yaa ngi ci aw moo tax lii lépp am kon dalal sa xel bu baax li am solo moom xam nga ko mooy xam sa bopp xam fi la yàlla boole xam li la sun borom defal ca xam nga ko yaa ngi koy doxee. sëñ Abdou Karim nag nee na li mu wax léegi ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal itam ni ko bëggee rek sun borom defee ko noonu. ne xam na ñaar yi nga jël ci Cheikh Mamadou Fadal wala ñett muy ak taalibe ak tabe ak oyof nee na loolu jël nga ko ci sëñ Fallou ñoo ngi lay sant baax Mbàkke la wax rek ci guddi gi salaamun hiya hatta ma layil fajri jàmm jooju nga xam ne malaaka yi ñoo koy indi ànd ak Seydina Jibril di saafonteeg jaam ñi ba fajar yàlla jàmm jooju yàlla sax fépp ci àdduna bi yëpp rawatina réew mi nga xam ne ab xeex ab xeex am na fa fu mel ni Ukraine ak Bisri ak Russie ne ba mu gàllankoor lu bari ñu ngi ñaan ci barkeb guddi gi barkeb soxna May mun a mu yem foofa barke sëñ Touba. ñaanal ko Mbacke macha allah. bala sa buri sëñ Mbacke maaram yàlla na ko fi yàgg. ñëpp lay safoo ñëpp lay bëggee. ci turu yoon wi may yoon wi. min Mbacke at mu jot nii ngay def.